taw leen doomu caalañ jël na ko waa ji jàppale seen aw waay ko kan la doomu caw leen la boo xoolee ñu ne ngemb weex lañ ngembo doomu caw leen doomu caw leen moo nekk suñu ndijoor ginnaaw doomu caw ak jàll numéro 2 a jalli la jallee mbër mu njool mi doomu caw la mbër mu gàtt mi doomu caw la jël ko jël jël ko waaw waaw doomu caw la fa wóorut jalli am njool la bu ràcce na la faax nga ñëw mais ndax ma nag day ngoobu bu ngoobu mën na daw takk añ doomu caw la waaw dalay daan jalli dalay daan doomu caw am ndax def ni njool waaye xeetu bëre bi nga bëre mooy lan oh, waaw waaw jalli daan na joobu caw waaw waaw Basiiru jalli moo daan joobu caw leen xeetu bëre bi daawali bëre moo baaxut doomu caw njool kenn du ko bëree nii déedéet njool kenn përëx përëxi am njool la ci taay bi day joué ah, waaw Mbaye Niang sagar yu xonq yi wala ak Mbaye Dia wala Mbaye Ndiaye Mbaye Niang sixième combat de la soirée Mbaye ak Tidiane Faye arbitre bi sifflé na numéro 2 ak Mbaye Niang bu écrit fekkee ma ci boole lii mooy sixième combat de la soirée Tidiane Faye numéro 2 ak Mbaye Niang ndeysaan sama xel dama Tidiane Faye mu lam saar ma ndaanaanu bëri kan la woon sa turandoo booy Mbaye Niang yor na taxawaay Malick Niang tuuti day yor tànk bi leew bopp si suuf <laughs> des fois affaire yi waane ci làmb Tidiane Faye mel même na mel dem te demut mais làmb ku mos xam ku ñam dolli waaw waaw làmb nii la ndeysaan la làmb buy dox day baax si xale yi xam ne làmb yaakaar. xoole arène nationale tey Assane Ndiaye moo fa nekk ñu fi nga xam ne mooy Iba Mar Diop di journée am solo tey di Thérèse dama fàtte di gërëm ndeysaan sama xarit ba Papa Ndiaye depuis Caaroy Géej nit ku baax la ndeysaan sama waaya waaw ndeysaan waaw waaw lambu xeex bi di ko jeexal bëre ay xale Tidiane Faye numéro 2 Amay Niang Tidiane Faye ak Mbaye Niang ndeysaan jàppante ngeen bëre lamb xale koy def bala jàppante war na mën a neex war ba dem na kër war ba dem na ngeen daal sama mama dërëm a ngi ne la taxaw sama mama la jaamu siyaare naa la ndeysaan laa ilaha illallah kooku sama yaay dërëm waa bëri leen loolu ma jeexal combat bi dox ci fay dox ci kawam waaw ndeysaan Boy Niang am njool la mu ngi xeex mais gëmul li muy dóor waaw jàppante nañ lañ ndeysaan jàppante nañu teel fay ay Mbaye Niang Mbaye Niang bal na ci kaw teel fay jàppul ngemb Mbaye Niang jàppul ngemb bu si gémmaa du ko plaqué daw ak moom ndeysaan Mbaye Niang war nañu ginnaaw combat bi war na mën a jeex fii nag war na mën a jeex fii war na mën a jeex sax moom si kaw te xam nga ne ñoom ñaar ku ne amul ku ngemb ñoom ñaar dañoo ñemente mais ku ne dañu bëgg dañu bokk lu ñu bëre moo tax lamb ji pour pour daan sama du yomb ndeysaan amul noonu la demee xam nga xale yi mbay ñaar dafa nekk mbir mbër mu waane Diène Faye moo gën a tey dana na maytu mu këf tànk bi salaamu Basiiru xool xoolal ma de xool waa kii kan la ndeysaan mbatum cala laa gëj laa ilaaha illallah oh yëkkati na ko ndeysaan ay waay xoolal ma lii naa la waaw fay naa la tey nga waroon bëree la Thérèse combat bi yàqu la def sant yàlla ndax jàpp naa ni sama combat yàqul ndax combat Bulldozer sama combat la man nit sama combat combat Bulldozer la contrat moo ma boole woon ak promoteur bi ne ma la treize ngay bëree ma préparé sama combat jékki-jékki dégg ci ay rumeur ñu ne ma sa adversaire dafa damm ma leen adversaire bu damm loolu noonu man waa CNG laa amal man lu ko dal man sama yoon nekk ci adversaire bi damam man yëgu ma ko sama yoon nekk ci wax nañ ko mais man waxuñu ma dara may déglu di préparé sama combat ba vendredi sama manager woo ne ma waa CNG am nañ médical ci adversaire bi médical 15 jours nañ xaw ma dafa damm man leen man adversaire bu damm nan la mën a amee médical 15 jours ne dafa damm loolu man ba ma dalee dégg damm-damm ba tey mosuma koo dégg fenn te man damay ndaw waa Malika yónni ma yàqamti ma waa Yëmbal waa Benn Baraak waa Kër Massar waa Montagne waa Mbëbës ñoom ci man yaakaar may préparer combat nekkuma fi pour benn mbër bëréewuñu man jàpp naa ni pare naa ci contrat boobu bu ñu joxoon avance tay tay tay ma ko ko waajal combat boobu waaw. foo jëm foo teg sa bët ak saa yi nii. ñi ci kaw man xamal laa lamb dafa maa soxla lamb dafa am ci man yaakaar te tay samay morom rek fi nekk di prouver képp ku ma lamb booleel pare naa waaw. mbër mu ñeme bu ñu ma am bu booleel pare naa pour bëre ak moom voilà. ok jërëjëf jërëjëf du nuyu ñëpp képp ku ma doon càppale ci làmb ji doon ma préparé génnee dërëmam def ci. ak sama gars yi aw ma seen fay ndax dañoo préparé defar seen blouse ñoo defar seen t waa benn baraag waa Yëmbër waa Kër Massar waa Malika waa Laba Ñaax waa Kër Massar cité Pelitence ñëpp préparé. te bu demee nii day métti di leen masaw naan leen nii la war a mën a demee naan leen seen mbër mu ngi sama xarit a toog noonu ndeysaan moom maa dërëm sama nitu démb dañoo ñoo yàgg xam naa war nañu yëg ci yow sama jël leen tuuti waaw ndeysaan Bachir Aziz Aly Ndiaye ngi na ne ànd ak maa ngi lay fay di la ziar di ziar waa lamb yëpp ah, di ziar di ziar kii tëgg lamb ji di ko félicité muy Jibi Ndiaye di ziar ñëpp. tey gis ñaar journée am na arène nationale mu tëgg Iba Mar tëgg na seen lamb dina dina dox lamb fu mu ne nii na si tànk yi nekkoon. waa xam nga lamb dafa ñëwaat si tànk yi nekkoon ndax ndax bu fekkee ni arène nationale day tëgg Iba Mar di tëgg ah loolu taw feex la ci wàllum làmb parce que lamb defe nañ ban ni dafa dafa dee kon nag bu yàlla dogalee ñu am ñaari bis ñaari combat yoo xam ne boo demee arène nationale ma ngay neex nga ñëw fii Iba Mar mi ngi neex kon nga xam ne làmb mi ngi dox ay jéego. te yaakaar naa ne day gën a yokku parce que euh, lamb dafa nekk loo xam ne comme mooy suñu sport nekk sport boo xam ne sport bu neex la aussi tamit ndax bu lamb bu dimanche jotee comme nii nga gis ci kaw nii xool ci kaw ay kilifa rek a fi nekk nga xam ne lamb rek a mën loolu leneen mënu ko waa nga xam ne daal vraiment fi mu toll nii daal xool seet na trop waaw ñu ngi waaj nag lu rëy le 13 juillet diggante Arma bu Ngéwél ak Bébé Daaru fee ca arène ak Pape Diouf Pape Diouf doomi doomi eh, naa leen ziar ak Pape Diouf Pape Diouf doomi doomi kii bu Fass bi ñoo ngi leen di ñoo ngi ciy ñëpp nag di ci wo Sénégal gépp lamb géwél la géwél yi dina saf géwél maanaam daal xamal daal benn affaire mercredi dañ ko jàpp mais bu yàlla ku ñëw ci lamb ji non di nga kontaan. reenu gi moo ñu woon ginnaaw wala moo ñu jox suñu loxo càmmoñ Ama Dóor mbër mi xees bi xanaa mbëru fuladu la mbëru ñoom Landing baa ngi nii wala mbërum Baka Sarr mi wala mbërum Balde <laughs> ah réeru guy Ama Dóor Ama Dóor jël na waa jël na coup li nga boole wax jël nga coup jël na Amadou ak Reenu Guy. ñaari xale yi daf mel ne ñoom ñaar amu. waaw waaw. Amaa mu Colobane. Amaa moom fay dëkk suñu si loxo ndey joor. waaw Reenu Guy moo fay suñu loxo càmmoñ. ndeysaan Reenu Guy. waaw ak Amaa bu Amaa bu Colobane booy bi ndaanaan la. ah ndaanaan la. booy xel. mais Reenu Guy moom war na yéeme. Ah. ndax Guy dafa yéeme. Guy de la Guy àndal lépp. waaw waaw bu nekkee ci moom dina doon daana dëgg la boo xoolee ki ma ne mooy Ama bu Colobane boo xoolee booy bu ren bu guy gi moo ko moo ko ëpp waaye loolu nen nen nee nañu loolu du si dara gis nga nu Modou Lo loolu ñëpp jëmm ji. attention Ama ak bi la ilaha illallah may booy bi loxo na ren guy loxo bi Ah, Ama Baldé mu ngi si ardo ba Basiru xoolal ma ko Basiru reenu guy loxo bi neex na de ndeysaan mu ngi faju ci ardo bi moom Ama Ama Baldé xale yi am na si ñoom dañoo mën a xeex Ama mu ngi nooy nooy rëy ndeysaan Ama mi est-ce que am na entraînement parce que li peut ñoom ñaa bëri amaguñ contact bu dëgër dañoo def deux mouvement mu daal koy dóor ci R4. buy wala reenu guy wala reenu buy Ama dafa demoon ci arrobi Bachirou. arbitre sifflé waan na diggante ñaari xale nga xamante ne ñu ci digg géew bi muy Ama 2 moom lañ doom def arro léegi. may ki moom moo reenu guy loxo bu dafa neex gis nga te booy bi neexul jàpp. booy bi nag naral am na tey am na combat de. na combat kay am na combat. waaye nag ak lu mën a xew rek que le maire ndax lam lam ji Sénégal lay des. booy bi dina favoriser xeex bi may leen buy. a gis nga. a que gis na buntu gis nga attention. waaw la fayu dóor fayu. gis ah, ah, bi eh. ama ak leen buy ama am na bés <laughs> waaye caméra maa ngi dellu si ba léegi buñ ko fëlee xaw fu mu jëm. Ama ak Reenu Buy. mais Reenu Buy war na am avertissement parce que koo door ci biti. waaw parce que dafa door sànq mais arbitre bi ba ne gisu ko. bi dafa def doucement nag kii dafa neexul jàpp. xale bi dafa neex loxo te neexul jàpp. la moo ko arrangé mooy kamba combat bu jege. fexe jàppante ak moom ba rek moom. loolu mooy combat am. mais sinon bu jotee coup de wàcc. day wàcc. ama deux. ama entraînement xam na aussi nu muy nooyee. maa gis nga. nooy bi biir bi. day waaye léegi dañuy dañuy dañuy jël combat pour entraîner. te entraînement léegi. bo gis nga mais boobu itam muy dóoree baaxul. baaxul bu gëm. waaw mi gëm. bu boobu boobu tuuti. boobu boobu ñëwee tuuti mën na ko dóor kuum wàcc. voilà. booy bu na ko bu daanu yan ma. muy gëm buy dóor. Basirou. reenu bu ni mu doonee baaxul. waaw ah, gis nga xoolal bu ñu doonee gëmm. te booy bu mu usee dafay bàyyi mu yëkkati loxo mu daal suuf. kese mais nag gis nga xoolal gis nga gis nga bu doon doy sëgg du gis. ama boo yeewoo tuuti mu ngi am ndam. waaye nag booy bi ñool la. il faut nga gaaw. dëgg la boo gaaw doo ko daan. dañu leen bay xasan. dafa ne ay gasa yu ñu doon dox seen gis nga ren bi lu muy def. waaw comme xar boo xamante ne gerte nekk si bopp bi. waaw yaa am kay abu desaan. Oh, oh. ay yar na yàlla jaamu yàgg. yar na sama ndar-ndar bu mag baa ngi nii. yaa ngi nii dama laa bëgg. <laughs> yow sama waay nga. ndeysaan. ndeysaan. waaw oh, Ama Ama Ama Ama Ama. buy waaw da koo daan waaw. ñàkk na da ko ëpp doole. da koo duma mu sonn daal koy daan da ko ëpp doole. da mu bëgg a mu daal doole. da ko ëpp doole. da ko ëpp doole. ndax gis na nga bu ko dóor ko dóor mu kaw mu daw ko. waaw ndeysaan noonu la. da koo duma mu sonn mu daal waaw gis nga da booy géejawaay la. ndeysaan booy géejawaay la. moo kii foofu ñoo bokk ndey ak baay. waaw moo kii koy yëkkati nii. waaw da doon niiroo ndeysaan. baay ndeysaan. ndeysaan. oh oh. ko Émilie da koo dóor dóor métti dafa neex. dafa neex. ndeysaan ama am na lu ko métti. parce que niñ ko daanee dafa métti Basiirou. parce que combat des fois ñu dañ koo duma daan ko. dañ koo duma daan ko. waaw da ko mbay nuyu nañ. fay naa la doom day am nga jàmm baax waaw bëgg naa la baax di nuyu waa wasaare mu naa lamb tey neexati na lamb bëggati na arène nationale tëgg na tey fi nga xam ne may ubbi maa tëgg na tey loo loo sa yëg-yëg tey ci loolu waaw la tey ren boo xoolee ne dafa saturé te aussi euh, date amul moo tax ñu ubbil ñu ubbi maar di ci remercier euh, ministre bi bu dul loolu tey ñëpp déwén leen jëm moo tax tey chaque weekend rek lamb dina am Iba Maar am arène nationale Sambay waaw noonu la rek di waaj le 3 juillet waaw di woo waa Sénégal yëpp di la nuyu aussi yow di euh, di leen woo waaw Wassare gis nañ liggéey bi. trois quatrième édition drapeau monsieur le maire Ndiaga Niang maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer di maire boo xamante ni macha allah waaw drapeau bi daf ko fonk lool di diggante qualifié numéro 2 ak euh, général bu fas wax dëgg yàlla. le 3 juillet aussi am nañ ci beneen drapeau boo xamante ni sunu kili la di sunu mag. di suñu xarit di Maguette Paye promoteur immobilier nekk fële sa yéen wax dëgg yàlla euh, combat spécial moom lañ ko jox di nit ku baax di ku ma jàppale aussi euh, diggante deux Giga ak Reum combat boobu combat bu doy war combat amateur ñu jël ko jox ko Maguette Paye di wax dëgg yàlla koo xamante ni ndaw la nangoo liggéey di def social di jàppale doomu aadama te kenn kenn kenn du bëggul kenn xam ko man mii daf may taxaw si lu ne wax dëgg yàlla combat bi bu taxawee yàlla ak moom la daf ci taxaw bu baax dama may jàppale muy Maguette Faye wax dëgg yàlla ma koy gërëm di nuyu waay yéen yëpp di ko wax ne ñu jàppale ko seen doom nit ku baax la wax dëgg yàlla di nuyu ay soxnaam vraiment di nuyu waay yéen yëpp di ko di ko taxaw daal waaw troisième drapeau bi di diggante Tafa Xarañ ak Boylo di drapeau Serigne Medoune Seye borom tawféex wax dëgg yàlla di nit ku baax tamit kooku tamit di jàppale askan wi xam ngeen ci dara xam nga di jàppale ñëpp. xam Samba xam ko suñu bu neex ndaw rabbi gi yëpp la bëgg ñëw. non le trois wax dëgg yàlla boo bëggee gis làmb dëgg dëgg boo bëggee gis euh, cosaan wax dëgg yàlla le trois juillet di nga ko gis bu soobee xam nga li ma la wax sax non man xam naa amateur na mu nan loolu moom leer na ma jërëjëf maa ngi lay jaare di ñëpp. Babacar drapeau bi dee nga jël delloo ko ñi nga xam ne mooy waa PDS ñëpp ñëw tey taxaw say. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la kontaan naa bu baax a baax am naa bu baax yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla doolu sutura waaw vraiment maa ngi nuyu bu baax nuyu sama jigéen billahi ba ma amee ba amee bis bàyyi na léppam ñëw kon euh, rafetlu naa ko bu baax a baax sama jigéen yi jóge Touba faaleen bi vraiment bàyyiwuma kenn daal nuyu naa ñëpp am naa mbégte bu baax a baax maa ngi rafetlu bu baax seen taxawaay yéen tamit euh, ndaxte kontaan naa daal waxaana ma jox leen ko ñoom ñoom après ñoom ñu wax. dina la gisee bis Baba Diop. waaw kontaan rek kontaan si sunu frère Ababacar Diop. vraiment ba ñu ànd ak moom si parti démocratique sénégalais ba tey amuñu dara lu ñu rëcc si moom ndax lépp muy def rek. Euh, daf ñu siy boole ñun tam ñu am contenté bu mag a mag mu si moom moo lépp lu ñu jàppoon rek ñu bàyyi ko pour wuy si ko si bés bii vraiment di kontaan si initiative bii nga xam ne moom la ñu jël mooy tuddee sunu candidat Abdou Karim Meïssa Wade combat bii nii jël ko bare ne ko ak Babacar Diop ñu am si mbégte bu baax a baax a baax ànd ak toutes les femmes leaders waa Tuwa waa kii Touba ñëw nañu waa waa waa Dalifor ñëw nañu képp koo xam ne waa Mboro ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ngi si biir kii bi rek wax dëgg yàlla ñëw nañ si biir parti démocratique sénégalais Sénégal ñëpp ñëw nañu vraiment di kontaan kontaan nañ trop si lii nga xam ne Babacar Diop moom la wootee vraiment kontaan nañu jërëjëf. kontaan lool ci teew ci bés bi ndax tey dañu tuddee suñu frère bés muy Babacar Diop borom mouvement jàppal ma jàppal ñoom ñëpp ñu ngi ne ci kaw ñu ànd jógee Touba ñëw ànd ko ak moom rek le combat continue. Bassirou Diop Fadama am dafa bëri xar fa xuufa ak débat déeb bëri ay salañ salañ xale bi doon xot sax ba léegi des fois dem si sëriñ bi la wutal ma sagaru muuma wala xamante ne bokkuñu dañ koy jël def ko si wetu si si ngemb da ko zaaru calañ lamb dafa am ñaari façon ngemb Bachiru ngembum séeréer dafa am ngembum soose am ngembum joolaa am ngembum ñaago am ngembum fuladu am ñeenti xeet yi mal rimal ku si am sa ñeenti xeet yi ma la limal muy pël soose joolaa njaago séeréer ku nekk da nga am façon ngemb booy ngemb soo gisee ngembum ci cilaan mu bari ci ginnaaw bari ay dukke loolu ngembum pël la moom la Ama Baldé di ngemboo loolu ay ñoom dubale sama lañu doon ngemboo boo gisee sërum rabal mi ngembul séeré daal di séeré du am balat ma ci kaw loolu ngembum séeréer la mbër simple yi la ñuy mburu olof yi nag jamono ji ñëw ngemb ngemb yi nga xam ne am ballonnement bi ci kaw bu ngande bi parce que ñu bañ ko jàpp seen ngemb bari day bëri seen war a ngemb lu ci suuf joolaa ak pël ak joolaa ak pël ak su ak ñoo bokk ngemb séeréel olof ñoo bokk nañuy ngemboo bala laa ne sax ñun ñëpp a bokk mais ñaari xale yi combat bu kaawlaat na la gis nii balak la ak am ma seen senior balak nag mooy noir yéen yéen a ma gën a jàng yéen a ko gën ndeysaan Ama Badiane ak Black sanga action bi nag ngi yëngal waaye général a ngi yëngal ndeysaan ama baje na balaa jàppante na ama baje na combat bi si bëgg a sonn moo tax ma bañ a naa abba rek ñaari xale seen combat yàgg na ama bañ a naa abba rek waaw ndeysaan loolu neex na de ama ba yéen a baraag ndeysaan waaw waaw waaw waaw loolu neex na Basiru ama ba yéen a baraag ndeysaan waaw waaw ndeysaan ama ba yéen a baraag wari wari nag yow ni la ngantalu bak war na mbaam laamu ji yëngu dina xoolal ma général waaye général mi tey yëngu na waaye dina mën lale ndeysaan yoonu victoire la ilaha illallah la ilaha bi yëngu na jëjëjër Assane baa ngi riir ndeysaan illallah laa mu yéemu dina Basiiru xoolal ma lii xoolal ma général Malika xoolal ma général général ak yëngal lamb yi ndeysaan laa ilaaha illallah waa lamb ñun nii nga ñu mel natugal si ñu si gàmb bu ñëwee ñun amuñu benn sigas nii nga ñu mel si gàmb ah. waaw nii kase amul yeneen waaw ñoo doon lan ngay wax tey sa adversaire. dégg nga. sa koy wax. waaw non sama adversaire xaw ma nu ma koy wax heure bi yàggatul koy def maay xeex maay bëre maay xeex maay daan bu soobee yàlla bu soobee yàlla mën naa doole maa dàq bëre maa dàq xeex maa gën a nekk xale. adversaire moo wax loolu. may xar fa suuf bay. débat bi mu ngi sol faanu mbaam ma ñëw def ko ay xaatim mais lii xaatim ñu ko tey ay téere dañ ko dàkkantale ci ginnaaw ba mu bari lii buur yi dañ sol ku ci mel ne sa maam ku ma Ndofène Diouf Alburi lii drapeau Matar Ngom la maa ngi lay mais maa leen nuyu Abous mon frère. sama xarit maa lay bëggee. ma bi ñëw di ko présenté. waaw ànd seeg Baye Mballa bu bu seen mag. di seen xarit. tey ba yëgee nga am. waaw kontaan rek. xam nga Pa Mourou moom bu ñu ko tuddee drapeau mooy ñun ñëpp tuddee nañu. waaw ñun ñëpp lañ ko tuddee. dañuy gërëm Djibson rek. comprend di kontaan ci moom. di ko ñaanal sunu borom yokk mën-mënam. ba mu gën mën a tëgg ay làmb Pa Mourou di kenn si ñun. suñu suñu sama mag la raq Modou la kenn la si ñun ko defalee lii rek maanaam satisfaction bu mag a mag lañ ci am daal. Hmm. jaajëf jaajëf Sele bu ndaw ak général Sele bu ndaw am na avertissement général moo ngeen moo ngeen mënu ruus di Sele bu ndaw moo ñaan def léegi léegi si yaram bi combat spécial de la soirée moo ñu woon ginnaaw journée Djibson mu naan neuvième combat de la soirée ndeysaan combat seetlu bu ndaw ak général diggante ndaamal daa màcc la ak ak ak njool ci ci laan tuuti ndeysaan buñ jàppante mu neex. général moom mooy borom ngemb lu ruus yi. général mooy borom ngemb lu ruus yi a xale lañu combat bu nar a gaaw la bu ndaw ak général. Sélé bu Ndaw général Sélé bu Ndaw jàpp na général jàpput Sélé bu Ndaw ak général lan nar Sélé bu Ndaw ak général ba léegi ñoom ñaar lan la bu Ndaw yof bëre ba nga ci suuf calcul la tactiquement Sélé bu Ndaw ak général Sélé bu ndaw ak général ba léegi Sélé bu ndaw ak général Poroñ meñ ba ma ngemb Sélé bu ndaw ngi door suuf Sélé bu ndaw ñu woon ginnaaw ban Sélé la Sélé mu Ama Baldé bi la wala ban Sélé la Sélé bu ndaw mooy nag bu ndaw général Sélé naax génne wala loxo bi doole mais selu liggéey na am na doole action yi nga xamante ne Zira na ko fi jàllut xale bi liggéey na mais lii may bëre parce que combat bi am na xeex mais xeex wut bunt la. ndeysaan ñoom ñaar. Oh. Selu bu ndaw kurpañ yi métti na kurpañ yi métti na ma ne kurpañ yi métti na ndeysaan ne ngeen ñu moom général fa mu teg bopp ba la ilaha ay waay waay waay waay <laughs> ndeysaan la ilaha illallah kurba yi metti yombul de drapeau ge drapeau géwéli seen combat yombul ne. waaw kon drapeau géwéli la. drapeau géwéli la. drapeau Pape Modou Mbaye la. waaw moo tax foo mu am kaanu ci Bantamba. il faut mu am kaanu ci kuli. ndax boo gisee Pet Bakaay mooy mooy seen papa. te Pet fu mu ko jàppee egg sori na. sori na ci moom. doole doole. doole doole doole doole daan na ko waaw waaw Zeyna daan na seetlu bu ndaw doole doole doxul jàmm fam ko yegg sori Basiru fam ko yegg sori waaw dëgg la doole doxul jàmm doole doxul jàmm booy ndaanan nga bëri nga bëri na ndaanan na waaw ndeysaan bëri na bëri na booy bëri naa la bëri na. Basiru dina ma yéey jël Basiru yatu Dakar rek a baax si ñoom yatu Dakar yatu Dakar bu fi yegee woon rek a baax si ñoom ku daanu jël da ngay da ngay tëbi nga xamante ne nii ay yatu Dakar rek a baax si ñoom. Basiru bi des na mën a gi moom moo nekk écurie Marumba. Bachir Buldozer li muy xam lu mu tudd ngaju mu ngi yor am ngaju di ko dóor si suuf si di si xool booy bi nga xamante ne moo nekk igiri yoof mooy ngin bu yoof xam nga ngin daana la ci wàllum bëre mais Buldozer ngemb tubale sa ngemb xoolal ma ngemb li Bachir jëlal ma ko ngembum fodi dus maama wala ngembum landin jàmme mi lii mooy ngembum ci ci lii mooy daala Ama Baldé moom lay ngemboo ngin bu yoof di mbërëm lëbu lëbu yi dar ku ci mel ne bu yoof ku ci mel ne Malick Niang ku ci mel ne Caatu Ngewel daan yëpp dar ci lambu xale bii nga xamante ne nii waa xool ngin man ngin soo ko xoolee damay gis Modja Modja ndaanaan la ci lambu inde bi koy sotti ci kaw parce que ji nga ginaar la ñuy jël def def ko ci ab gën ginaar jël teg inde ci kawam. sotti ko ndox ginaar gi génn yëlëbu ndox moom dañu ne boo ko sottee ko yaram bi lépp luñ la liggéey lay deñ waaw loolu ay liggéey lay toj loolu xam-xam la te ànd ay puso ànd ay guro la des ak la dama ko wax si loolu ku ko bëgg xam nag may woo <laughs> mbaa dama mujjee doon sëriñ di ñaanalaate Papa Sow numéro 2 ma ne si digg géew gi. moom mbër la woon dafa bàyyi bëre ndeysaan hey ay waay ngin bu yoof xale bi jël na butéelu 6 millions ba de sotteeku kooku xale yaa ngi digg géew gi xam nga léegi lamb amul ndaw. lamb la. dërëm maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu sama rakk bopp. tey ngeen ñoo accompagner seen nit seen xarit ñoo seen tuddee seen drapeau am solo mooy drapeau bi nga xamante ne neex na leen tey seen yi ñëpp tey seen teewaay ci drapeau bi. tey sama rakk lañ tuddee muy Mounas Balde Balde bu ñu tuddee ma ne ma magu jàmbur kaay gunge ma ma ñëw ànd ak moom ànd bu rafet ànd ak moom i bool Pape Cheva Pape Ndour a ngi ci kaw ak ñoom Laxat Fay ak xale pikin yëpp dara si suñu rakk ji munaas bala mu war fajri di animatrice nekk koo xamante ne dafa ma yàgg wax yaay sama idole yaay sama mag te mu yàgg lool du tey comme tey buñ ko tuddee làmb ma ñëw fekk ko ànd ak moom gunge ko wàcc naa Balde buloo mi ngi noonu bis tuuti borom lay tollal moo tax làmb ji ala doomi moo mee ngi sama wet boo paree ñëwal ci ma mun naa maa ngi lay nuyu. maa ngi tey <laughs> nga xew la ci say mbokk ci say xarit mu nekk lu neex ñu tuddee la drapeau ne bis bi ne ala doom tey journée bi na lool taar na kaar macha allah tey ban yëg nga waaw mi ngi noonu affaire yi moom daa ala daw me waaye xam nga ku la yëg rek moo la sonal donc ba wax dëgg yàlla jibi yëg ñu am fu ñu teg ñu boole nag li ñu neex ak li ñu naqar yëpp def ko lépp mu nekk mbégte waaye nag euh, sama ñëw bi ki tax sax mu gën ma gën a ñëw mooy Baye Ndiaye Aziz Ndiaye borom albura waaw léegi nag mafia bi lañ wax waaw mafia bi ku ci bokk xiir gi da dal waaw da ko gaaw gars dégg doon noonu <laughs> <laughs> waaye xam nga nga bool bi comme daa bëri problème. ah war bool bi dafa bank te daa bëri problème ba histoire boo koy génn da koy waaj ndax damay ragal tubarkalla gars yi fayee ni ami rab di daanu loolu rek la waaye ba tay may mbëkku rek waaw arburaax eh ku ci bokkul xiir gi daa lay dal arburaax ku ci bokk ay xiir gi daa lay dal waaw kay Aziz Aly Ndiaye nga ne tubarkalla les frères Ndiaye kontaan nañu waaw ànd ak suñu doomu nday ji rek tubarkalla ak dërëm yaay sama doomi nday borom TFM ñëw rek gunge ko dëkk bi yëngu waaw kay ayca mi délégation bi am na solo lool Bachirou. waaw ndeysaan. mais biñ la seer ban yàq la yor nii yàqulu yàqulu mu doon. yàq wi yàqu lan la Bachirou. ah yàq bi day war nañu wax ban yàq la. Ah, Baba Diaw a ngi ne taxaw cam production. xale bi moo tëgg soxu moo tëggul soxu gàmmu gi bis bu rëy ba. mbañi sa ko bal de. gàññi production ak ñi mag yi suñu mu laalaat ko mu neex ndeysaan kooku mooy baaba ndeysaan man dama te yàlla tax borom la trois ba ak kii borom la quatre laa ilaha illallah Basiru bi yàlla ba ma ko upp wantaay yi nga xamante ne moom la ngin yor xaw ma wantaay lu mu doon mais yax bee xaw ma yaxu lu laa ilaha illallah ee eh waay image bi dafa rafet ndeysaan combat bu nar gaaw laa gis nii de combat bu nar gaaw laa gis nii ñaari ngin bu yoof la ak bil deser bu egiri bu egiri waaw ah, ah, moom la egiri ma rumba waaw oh, la ab kalafiye la arbitre baa ngi ñoom Basiru li lamb bañ nangu ngin bu yoof am avertissement waaw am mu ngi seere la bataake ngin bu yoof ak ak bi la seer ñu bëri grand combat bi ndeysaan arbitre bi ngin bu yoof ak xale bi mooy Bulldozer Basiru Bulldozer mu ngi dox ngin bu yoof ak Bulldozer waa ngin bu yoof dafa war a ngin dafa war a ngin dafa war ngin de mais Bulldozer sax nee na ma comment bi gaaw ma ne ko indi ma ne ma bëree ma dóor ko su ma daan ko bu xeexee ma duma ko mais fi mu ne kenn kenn xeexul kenn bëreewul kenn cokkaasut ngin bu yoof ak Buldozer ñoom ñaar wuri dem na ke war man dana nga taali Basiru war mbaam coolu si ëttub teen bi gars amul baag la mais ku ci am doo wax patt ngay def ak moom ndeysaan eh waaw ngin bu yoof door cokkaas na Buldozer doo ci koom xeex bi commencé na waa lii la moo koy sottil ngir bi yëf jàpp na Buldozer jàppante nañ ñoom ñaar ngir bi yëf ak Buldozer Buldozer la nar noonu lan la nar def noonu Buldozer fi jàpp baax na ràcc na ngir bi yëf mu ngi recherche fu mu mën a jàpp eh, <laughs> waaw ngin bu Yoff amul ngembu amul ngembu eh bu ko bàyyi bu sa de bu ko bu ngin bu eh ngin bu Yoff ak bi la seer ñaar ngin bu Yoff li mu baaxut de ngin bu Yoff am na ngembu Basiru am njolla bu mu sigi yéen a sigi bu ko bi la mun na koo mais Buldozer tamit na moytu mbot moomu am njool kenn ko mbatee noonu da ngay surux parce que bu bàyyi loxo yaay jiitu ngin bu Yoff ak Buldozer ñoom ñaar ngin bu Yoff am na ngembu Buldozer am na ngembu laa ilaaha illallaah Buldozer dugg na Buldozer dugg na bi Lazer dugg na oh fa mu jàpp baaxul bàyyi na bi Lazer fa mu bi Lazer bul force boobu mais ngir bu yóbbu fàqee am dara ngir bi yóbbu fa mu niroog mbë day mbot day mel ne kuy raj bi si suuf na ko. ngir bi yëpp xëcc na ko kal na ko mi ngi xeex ar bi atte na combat bi neex na Basiru ñu ngi bëre déedéet déedéet déedéet ah déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet dañoo xeex ba génn saako yi déedéet avertissement bi d'accord ma woon na Basiru mais avertissement bi d'accord ma Basiru d'accord ma dañoo xeex ba génn saako yi d'accord ma avertissement bi waaw des fois dañuy yàq combat xale yi des fois ñu ngi bëre ñaari ponkal lañ dëgg la te fa am nu mu demee dëgg la waaw dañuy wëlbit de waaw ngin bi yoof ak Bulldozer ñoom ñaar combat bi neex na say nattante nañu ñoom ñaar ku ne mos na sama room xam nga sama room li muy soof waaw parce que des fois dañuy peese Jibi Ndiaye ndeysaan def na journée bu neex tey le treize fii si stade Iba Mar Diop bu mën na mu Bachirou gëj naa fi bu neex tëgg làmb c'est que lii bu amee làmb day dox promoteur yi dañuy ñemee ba ba tëgg combat yi waaw ndeysaan ngeen bu yëf ak Bulldozer ngin bu yoof mu ngi ngang rek xaw ma lu muy ngang xaw ma Pathès da koy fatt xaw bu yoof ak ba jël na la jël na la Buldozer jël baax la ba Buldozer ak bu yoof laay génn ci génn ca ngeen bu yoof ak bu yoof ak Buldozer ñoom ñaar xale yaa ngi bëre Basiru bu yoof ak Buldozer ñu ngi xeex ñoom ñaar ngeen bëgg faak bi la seer ñoom ñaar ay waay mbay ay lamb ni la a mel <laughs> ndeysaan ay waay bëgg dina afalkat yi nañu waxkat yi kontaan nañu film na kat yi nañu lamb nii lay mel lii daf ñuy sawarloo ñun parce que lamb suukar am kaani rek am poobar rek day neex

Buldozer ak ñun bu yoppal léegi ñim ñaar ndam ndamul ndam di kurme kurba ñaa ngi dal mu ngi mel ne dugub de ndeysaan ci Buldozer ndur na ko moom lamb ji de dëgg la ak seen confesse bi yof ak bi booy bi di bi laser dafa mën a bëre ndaxee de mën na bëre mu ngi wane boppam ndeysaan bi laser du naaju ndeke sere ngir am na combat am na combat waaw am na combat Basiru dama fàtte waa wasaare lamb yéen koy wasaare mi wasaaroo ci réew mi fépp ci àdduna bi liggéey bi rafet na Basiru seen liggéey rafet na am na waaw takk na la bi laser bi laser bi laser daan na la waaw daan na ko jëli bu rëy <laughs> waaw bi laser bëri na bëri na bëri bu daan na daan wi waaye bu dee seen xale bi waaye ndaanaan la ah waaye yëfu ñu ne bu dee bëri bi Basiirou sànq nee naa la bi dee seer ñëw na sànq nee naa la booy bi ñëw na ci lamb ji xale bi doomu yëmbal la xolama général xolama général xolama général waaye yëmbal yëngu nañu xale bi ndaanaan la Papa Sow numéro 2 ko indi bi dee seer ndaanaan la xale bi bàyyi leen ko xel bàyyi leen ko xel Fatima di gërëm bu baax Sénégal moo nga gi yëpp moom nga entraînement yi mayu ma dara di sant sama mafia bi waaw gi ñun gi nekk si ñun gi nga xamante ne moo nekk si ñun parce que Seydina Mohamed feeñewuñ ci dara gis nga feeñewuñ ci dara waaw mais tey bisu a sa bakkan nga tey ñëpp a ñëw sama mafia parcelle ñoom ñoom Sooro ah ñoom andi Moussa Fall am liggéey ah. ñoom ñoom ñoom ñoom Bamba waaw bi rek am esaf di xaar ku ma bu boogee baax man xale laa dematuma fenn. tey di réclamer Modou waaw man man maa ngi maa ngi maa ngi bul ñëpp maa ngi bul ñëpp bàyyi bàyyi ma kenn